comme yow nee nga fleur yi moom dooleen leen arrosé man dinaa leen arrosé sa liggéey lépp moom fleur yi bokkuñu si te yaa daa ko fépp. waay waay yow ba jamono sosee ba léegi da nga maa xamee ay rosé fleur. waaye xamee nañ la toog ci taatu fleur yi ndax yaa ngi ciy noonu di féexlu. waaw ba tey mais man du ma rosé katu fleur. waaw baax na loolu de mën nga ko moom bu ma nee benn nga ne ñaar. Samba dërëm <laughs> ah waaye Samba Ndërëm ay jinne ko toppami rabam lu mu doon. yow Abdou Fall kañ la ñuy wàcc. kañ laa lay wàcc kër Samba Ndërëm lakkati na lan laa ci man yow xanaa Samba Ndërëm chaque jour këram tàkk yow balaa ngaa mën a ñëw heure sieste jot balaa ngaa mën a ñëw fekk ñu toog di waxtaan. vraiment Abdou Fall amoo jabar amoo gel bu assuré xamoo luy bànneexu sëy. yow nga ne fu ñu toogee di neex la rek yow nga ne danga koy yàq. abi yow Samba moom kër moom kañ lay fay. man sama yoon ci këru Samba guy fay sama yoon nag ci kër Samba giy lakk la nekk su ma ko rombee muy tàkk dinaa ñu wax su ko kii. te man Samba ñetti jabar la yor. sama yoon ñëw ci kenn ku ne yan woon paanu ndox sotti ci mu fay. loolu jëntiwu ma ko man tàkk-tàkk bi laa gis moom laa gis Habib fa ne te xam ne Habib mënu koo fay. jógal ñu dem. Habib moom moo Samba comme peeru dal. xam nga la laa bëgg nga dal gis nga bi du jàll ak man. mënoo chaque jour nga ne këram day tàkk. yàlla mën ko teree fay sa mbaxane bi di mel ni potu douce boo ko ci yenoo ñett kër gi fay. vraiment vraiment yëg nga ñu nag damaa bëgg nga wàcc ñu damaa bëgg nga may ñu ñu ritambale tuuti ndax ñoo moom suñu bopp. yow lu ritambal woon ba heure bi doo koy ritambalee. yaa ngi ne sa ans yi per na ba mel ni mbuusu ndox. Ah, xam nga lu mu bëgg d'accord ma damaa ju mais kii yaroo ko kii yaroo ko. wuyu ma ma sama jabar khas lo la ko yar lo la ko d'accord sunu rita mballa yit sa yoon newu riita mballa len ba tañañal jogon ñu dem fay keur samba dewma dewma dewma way jogon ñu dem fay keur samba yow yaa nangu ya chef de quartier keur samba di nga ko fay de mom chef de quartier la demul mi ngi tok di dundu dundam yow mi nga xamanteni ni kessa nga gen yow fo rité rek ñew jël si ko la mo la ko téré dem fay kii ma top ci mom wa ya top ci mom mom bu mënta dem yow nga géré ko duma jël risque di fay keur te mom jugut ñu dem légui chérie voilà maa ngi dem maa ngi ñew jeex baax na. yaa ngi dem yaa ngi ñëw maa ngi lay xaar. xool ko jeex na waaw jóge ñu dem. du ma taxaw demal maag yow. ñëw bu yàgg bu yaboo de. chaque instant nga dikk di yàqalaate. waaw maa ngi sa bu mel ni eh. dina la bu. man nga toog sa couleur yu bari ci man man ñi jaaxal nañu instant mu ne kër guy tàkk te di leen bàyyi leen ñu dem fayda. te comme fay lakk la rek te dëkkandoo jàmm moo ca gën dama leen di la nag. mën naa ko duñ ko peñe tamit. sama jabar da koo ni ëmb xaaxaam. nga ni. alhamdulilah. loolu diis la de. lii bu la ko jàppaloon rek la ni tambal la lu am coow. mi ngi noonu. def ci lu la léegi mu mel ni sa va liis. mi ngi noonu. na neex daal yow. dëgg la hmm? waaw. waaw mën a dëkkee ak waa koñ bi nii seere seen bi. dama leen a gën a léegi rek nag. Ah, mayu ma leen dara ci koñ bi. Ah. oh. Ah. jàmm soriwul de jàmm. jàmm yi de parce que fu mu hmm, hmm. du ca yaay de ba yaay borom. Oh. barke yàlla ya kay <laughs> yéen li sen fay lak ay lu fi tak eh Abdou Fall demu bu dem bi ñoo nga bëgg dem ci kawam tak tak fay bari rek way yàpp du fa am personnalité nak amo len ci dara dafa fekk ne nak yow mom duma wax ak yow lima la wax rek amo jabar jël bu assurer amo ko kon awma lu may wax ak yow waye yow yang xoba gis nga ma eh, ko Ma bëgg nga di ma ma di la xool yaa ngi xoo ba lo manké suwen bu dem. ci suween bu dem lolu mom mo koy wax ndax guy doxan yak jabaram waye yow xam nga ni man du ma bo boo ci ni sama jëkkër day gën di wër lenen dafa fekk na nak yeen da ngeen a doy lu wut lu mu neex neex neex ngeen pare da ci tek potu ndox bébé may ma capp nga sa loxo si soos bu bëri sax. Mm-hmm. tey nga xam ne xale baa ngi toog ne faax faalewul benn jaye. looy toppee lam doo toog. man ngay toppee gis nga sa jëkkër gi. Eh. maa koy yóbbu Amérique di ko indi Sénégal. ma bëggee sax mu des Sénégal. kii si sama loxo lay amee bànneex. Oh. yaa ngi gis yi maa koy defal sëfa bu liis. loolu sama bos bi. Eh. loolu la loo waaw. kii perpelé perpelé leen ko rek. may ma eh, tuuti ma ñëw jëlal. yow soxna si xam nga ni de un man nawloo ma la. ndax éducation de base zéro. voilà foofu foofu daan naa ko wax papam moo def erreur parce que daan ko def ma naan ko defal ko éducation éducation de base moom mu naan physique la koy defal. moo taxit physique bee gën physique bee gën. damaa xam ne yow nooy duggee kër jàmbur rek di ñëwoo. déjà yow foofu rek da ngaa daan ah. waxatuma ñaar nag laa lay xamal gis sa ñii yow yaa ci topp di ci daw. menu bu ñu la doyee woon dara dañ leen di fat ci biir. Ah. defal woon ba neex. du yéen ngi dégg. amatuma lu may wax ñu wax ak benn dem lay xaar kër ga. waaw yow daal xaar ko kër ga li ci des. bàyyi koog ñoom lii rek di def yéen doo leen mën a téye seen bu ko ci xale yi taat bu bi wax ni eh, sama jabar ma ñuus la xam nga lan yow moom da ngaa war a yow yow da sa kanam di mel ni daal kii nag moom aw lu may wax ak moom yow ndëgam yow yaa mën a ñëw ni bëggoo ma tey jii nga taxaw fi validé loolu amul benn problème ñun ñoo ko def. ma ci métier de ñun ñoo ko def. dégg nga yéen a ngeen a lamb yéen ngeen dëggu man ba dalay ñëw fii ko comme jéem ak morom ma lu leer laa leen di wax man la jëndu ma liggéey bi loo ma xamal yow loo ma xamal yow yow loo ma xamal yow billaahi sama fetal la ngi tàkk sama fetal ngi tàkk Abdou Fall utul jabar ay waga ngeen ay waga ngeen utal jabar ay waga ngeen utal jabar moom yàlla dogal na noboo leen hmm. lépp tolloo na voilà ñun finaalu nan yow nag séeri ma lay wax ne tey xoolal séeri waaw ah, waaw ba deko ah. man du ma dara nanga ma passé ah, je suis désolé <laughs> je suis désolé man maa libéré kon maa ngi dem <laughs> waaw day def a yow. maa ngi di yàqal itam lii. yow yéen it bu a fett daa am. yow li jot sa jan boor boobu jan boor boobu. Abdou Fall de sol mu jot.